axlan wasaxlan nana lan la yéene kaay yi xëy fekk leen ma ci réew mi ku tijee moom mi xëy si marche bi nga xam ne moom la ko jóg politique yi woote tey sa place de l'Obélisque ba xolam sedd ubbil yéene kaay bi yéene kaay bi di ñu xamal nañu gannaaw Ousmane Sonko kàddu yu démbam yi woon na sénégalais yëpp de aha maa la koy wax ñoom ñëpp ñu wàcc ci mbedd yi jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo di pouvoir bi wan leen na dëgg-dëgg ñu réew mi yéene kaay bi biral di ñu xamal boobee tey jii ci ngoon la leen mën a tere def li nga xam ne moom moo di marche bi Tribune yéen a kaay tëll daan na assemblée générale populaire moom la gujjëk politique gi woote tey moo taxit de ñëpp leen wuy si Bougane Gueye Dany nee na fii ba Macky Sall di génn ci bopp réew bu Sénégal ñoom ñëpp a a booloo doon benn say ndax ko dëgg mooy bàyyi njiit réew mi Macky Sall si biir réew mi yéen a kaay bi biral daan na tey boo saaganee dina dugg si biir l'histoire Sénégal ñël politique de aha la ko wax ma ne la jàkkaarloog njiit réew mi Macky Sall alerte yéen a kaay tëll daan nag wàccal si suuf tey jii la ñuy jàkkaarloog njiit réew mi Macky Sall geeru mbedd lañ koy def de aha maa la ko wax ñenn ci waa yeewi askan wi police bu Médina dalal na leen de ngir jéem xool tey ji lan mooy seen stratégie bu ñuy xeexee waaye amul kenn ku sa yëy yàbbi benn vidéo bu doon circuler si internet bi am ku tey wax naan day woote wiyelaas ñeel marsu tey ji looloo taxoon préfet bu Ndakaaru doon tànqam la autorisation bi de waaye bañ ko wanee ki moo di Khalifa Babacar Sall lam leen wuñ de aha ndax ñun woote wuñ benn yoon li nga xam ne moom moo di fitna marche bi si jàmm lañ ko woote te si jàmm lañ koy amal keneen ku fa indiwu ay bokkul si ñoom Bougane Gueye Dany moom it takku na moome ki ñoñom ba dëgër këcc fa séenée ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi tey kay place de l'Obélisque ku fa sànni mu takk démb nag gannaaw conférence de presse bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ba mu jeexalee Bougane Gueye Dany daa di def mën na la waa Benno tamit bàyyi wu ñu sedd de ndax Mimi Touré wax na Idrissa Seck wax na ñeneen ak ñeneen ni tamit wax nañu Idrissa Seck tontu yi mu jagleel ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko moom moo di Ousmane Sonko loolu muy wax dara amu ca loi ci boppam moo ko tënk te nag dañoo war a respecter bu Sénégal critique yéen a kaay tëll daan na ne ku jëg politique gi tey jii la ñuy natt seen doole de ba xam la woon daaw ñi ngeeg moom ba tey tey jii daal dinañ xam ana ban tànk la taxawee Ousmane Sonko nag wax na leen ko démb de nee na boo leen yaafuusee ba marsu tey bii du amee nu ñu ko bëggee bay boo ngeen xam ne njiit réew mi Macky Sall dugal na la ko fekk de si la koy seetaane Ousmane Sonko nee na jeunesse bi yéen ñëpp na ngeen jóg takk ba mel ni naana ndax ñun xeex bi xeexaluñ ko suñu bopp de uniquement déedéet dañ koo xeex pour yéen jeunesse bi yéen la ñuy xeexal kon nag bu leen kenn jiitu ci li nga xam ne moom moo di ci manifestation préfet bu Ndakaaru lan mooy ndeyu muy tee suñu autorisation bi nga xam ne moom lañ ko doon laaj pendant une semaine loolee bu ñu nooyaloon benn yoon rek ñu daal di koy nësaxal waaye moom marche bi bu leen neexee dinañ ko amal bu leen naqaree dinañ ko amal muy guddi muy bëccëg muy taw wala muy naaj dina am l'observateur yéen a kaay tëll xëy di nettali lan moo waral marche bi nga xam ne moom la ku jëg politique gi war a amal mën a rejeté bi nga xam ne rejeté nañ ko Ousmane Sonko si seen liste bi aha maa la ko wax loolee ci la bokk de gannaaw nag buñ ca toptalee dund gu seer gi nga xam ne moom la askanu Sénégal yëpp di dund l'observateur yéen a biral daan na fin moom bu amee bu mu bett de ndax jamono ji nga xam ne waa yeewi askan nee nañ a dina am ci biir réew mi dinañ ko xaar lu mu gàtt-gàtt surtout yéen a kaay daan na préfet bu boppam fu wax ji àgg rek moo ko fa yóbbu bañ laajee autorisation da leen ko waroon a jox ci jàmm salaam ndax ñii jàmm ak salaam dong la ñu woote woote wuñu fitna woote wuñu guerre ci biir réew mi waaye yeewi askan wi ba ñuy tontu commissaire bi nga xam ne moo nekk ca Médina ñeel vidéo ak audio yi nga xam ne day circuler mel na luy woote fitna ci biir réew mi lañ wax commissaire ba lenn la ñooñee bokk ñu ci ñun mën nañoo am sax waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo def seeni yëf ñu bëgg ko taqal ñun woote wuñu guerre woote wuñu fitna génn tojuñu taaluñu jàmm la ñu woote ak salaam dañoo am lu ñu metti dañuy jàkkaarloog suñu askan wax leen ko ñu dégg waxtaan la dong lan moo fi jar xiiroo wala ŋaayoo duñu ko def benn yoon bu amee nag ñoom ñoo ko waral biir yéenakaay bi kii layal Adji Sarr moom maître El Hadji Diouf amul lu mu yàkkul démb Ousmane Sonko yàkk na ko lu mel ne xeme àgg na ci sax ba di ko saaga nee na Ousmane Sonko ci boppam ay wowoon ca Casamance la bëgg a yee si biir réew mi te loolee duñ ko ko may nitu fitna ku koy wër jàppal Ousmane Sonko Cheikh ci biir Vox Populi mu yàkk fa Ousmane Sonko lu mel ne xeme nee na kuy wër ku ñàkk yar kuy wër ku yàq diina kuy wër ku réew na ah, maa la ko wax de Cheikh Omar Anne ci boppam mooy wax Cheikh Omar Anne nee na nag yéen waa yewe askanu yéen lay waxal de képp ku fi na yee fi na fii ci biir réew mi dinañ la jàpp nuus ba pare dugal la ci biir kaso bi Aminata Mbengue Ndiaye Idrissa Seck ak ki nga xam ne moom moo di Mimi Touré démb daal lu guddi guddi ñoom it nañ wax de aha ña ngay défendre seen bopp tey jéem a dugal ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa yewe askan wi les a tous les dangers la ñuy xaar mën na la réew mi tey boo sàgganee dina yëngu de ndax fitna yi nga xam ne moo doon nelaw ci biir réew mi tey ji la war a yeewu place de l'Obélisque si kay foofu la gaay yëpp jubali am na si ñoo xam ne da nee nañ dañuy ndékki ji bu ñu ndékkee la ñuy jéem a dem dinañ toog ba gaay yi ñëw ñu ànd kook ñoom duñ leen may dara hey mbay lii da dina mel na kon tuq suba nësaan ba réer comme guerre ba suba